jaajëfal alxaaji sëriñ Mbàkke Sylla nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak def dara ni ñu ko tàmbalee woon démb ilaa Poroxaan moom la ñuy wéyal ilaa Poroxaan di waxtaane asayida Mariama Buso jaaratullah eh, tabaarakallaahu di ci ànd ak uh, al aalimul kabir Serigne Sam Bousso Abdourahman yàlla na ko yàlla yokk wér démb maa ngi noktoon ci xamle lenn ci saxsiyatu soxna soosu xamle lenn ci jikkoy soxna soosu ci digganteem ak ki dëkkandoom ci digganteem ak sëriñam waaye ci digganteem ak taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ca daara ja moom soxna soosu soxna soosu kon wal baladu tayyib yaxruju nabaatuhu bi isni rabbi na ci moom ndax sunu boroom moo nu ci alxuraan di laay joo xam ne ji suñu masaana dalal suñu mbokkum daara ma sëriñ Aboo Mbàkke nekkoon ci usine balaa jeexal rek indil ñu laay ji wal baladu tayyib yaxruju nabaatu bi izni rabbi yàlla na ko yàlla yërëm euh, kon soxna soosu tey ñépp a ngi jóge ci gox yu ne di ko fekki fa la ñuy wax poroxaan poroxaan nekk ci saalum ni ma ko waxoon démb nga dem ba weesu kawlax ñëw fekk ko foofa mu nekk la ko fa yóbbu mu jóge bawal dem foofa ca saalum mooy talbiya li daawatil jihaad allati rafaaha almujaahid tafsir ma ba joxu ba la fa yóbbu soxna sa mooy sunu maam Maamoor Anta Sali radiallahu anhu moo dégg ma ba joxu ba yëkkati kàddug jihaad yëkkati kàddug fas yéene tasaare lislaam ca gox booba yëkkati kàddu fas ko yéene yaatal yëkkati kàddu fas yéene xeex eh, ak tooñ yëkkati kàddu fas yéene samp foofa jàmm bi xibaar bi agse ci Mamour Anta Sali ak mbokkam ma Sëriñ Mbàkke Buso ñoom ñaar ñépp ñu ànd ànd ak njaboot gi ànd ak sunu maam ji nuy waxtaane maam jaara buso loolaa leen yóbbu saalum waaw yàlla def mu des fa ñu denc ko fa allahu def mu des fa ñu denc ko fa am njàng mu bare bare bari nekk ci biir foofu ñu ko denc mën naa am ca jamonoy denc ja wéetoon na fa waaye fii nu tollu day kenn umpalewul ne wéetadu fa ndax sunu boroom ni ko waxee barki démb ci waxtaanu ñaari jeeg ña doon root ca teen ba ba kenn ka doomam tàbbi ci teen ba ka ca des fab doomam sànni ca ñaar ñépp na ci biir teen ba mu ne génne leen xale yi bu yàlla reyoon kenn ka rekk tabarkalla lu ne mën naa juddu te bu ko neexoon rey kenn kati dara du ko ci fekk moom sunu borom waaw mu tax nun la tollu Haajara keroog bañ koy yóbbu fee mu ne fee di Makkatal Mukarrama nekk tey mbokkam yëpp mën nañu yëkkati seen kàddu ba ne ko li ab sëriñ jëru ko wala jëkkër jëru ko waaw nangu lu jafe la nangu daanañu dégg way wuñ daan way ca rajo dakaar jamono yële ndeysaan góor gu ñu daan wax alaaji gay sunu mbokk làmp fal ñoom ñoo ko daan teg yàlla ko yàlla yokk wér alaaji gay ba mu daan woy faatu gay daan dem ci biir di wane ne ak mbaax li feeg niroowutu ko ndof baaxagoo mu ne jeeg ju bon ji dañ ko wax faatu lii du mbaax ak ndof la faatu laajal sawari gar yi bu la wàccee keneen jël la loolu lañu daan wax faatu tabarakallah kon maam jaara dem na poroxaan dem na saalum ci yu mel nii bañ fay door a àgg nag nanu xool rek nangami at ci ginnaaw nan la foo na mel nangami at ci ginnaaw nañ dellu ginnaaw rek boo dellu woon juróom fukki at dellul juróom-ñaar fukki at téeméeri at foofu nan la war na mel poroxaan googa tey allahu akbar moo tax képp koo xam ne kii danga jóg jëm poroxaan nattal sa bopp ci jëlal téeméeri at ni poroxaan di mel ñu dëkkaloon la fa rekk nga xool bu baax a baax nga gis jigéenu tey waxuma la yóbbu ko poroxaan waaye biir dëkk bi rek am na quartier bopp du fa dem pour moom ëpp na foofu waaw <laughs> kenn mësu koo gis rek mbokk yi ilaa poroxaan waxtaani soxna maam jaara waxtaani ay melokaanam ki jaar-jaaram mboolem ñi nga xam ne ñooy gawar yeeg warkat yi bu nu waxee da fekk ca wax ja ay jikko yoo xam ne mënees na koo roy te ku waxoon ne it bu fekke woon jigéen ña yonent ba alayhi salaatu salaam doon lim tagg leen wutal leen ab liste bu leen fekke woon bu ci duggee kenn du ko génne sallallahu alayhi wa sallam ne na kamula min rijaali kathir ne góor ñi ñi ci mat liste ba kenn mënu koo xam mu ne waaye jigéen ñi juróoma ci mat seet mu ne góor ñi ñi ci mat bari na ñu waaw mu ne waaye jigéen ñi liste bi bariwut sallallahu alayhi wa sallam mu ne liste ba bariwut suñu saam busu mu ne liste boobu liste boobu bariwut de mu ne waaye ko ca fekkoon maam jaara doo ko dindi suñu saam busu waaw góor <laughs> yàlla sàmm ko acca ñu ne yonent bi liste bi ñaana mu ne imraatu firawna day imraatu firawna mu ne am yonent bi moo ne ci liste wala bokk mooy tëdd liste imraatu firawna mooy jabari firaw na ja jëkkër ma ci jëkkër yi seetal loolu rekk jëkkër ma ci jëkkër yi ndax fi ne jigéen na ngi jigéen na ngi <laughs> jàmbat jëkkëram waaye su jàppee ne moo gën moo gën jëkkër asiyatu rek mën a toog waaw boo jàppee ne asiyatu yaa ko gën jëkkër rek mën a toog Asiyatu day yonentu baa ngi lim liste bi def ko tête de liste waaw te mu ci jëkkër mu yées ci jëkkër yi tabarkal mu ngoog kooku ne waaw mu ne bokk na ca ñoom Maryama ibnatu Imran waaw moo doomi Imran ja ca ñooña la bokk ca ba waaw di leen lim ba agsi ci sunu yaay Aïcha mu na Aïcha nag ni cere gën a ci ñam yi la gën ci jigéen ñi <laughs> waaw ni cere gën a ci ñam ñi xam naa ndaw ku nday tey dañu kontaan ab eh, sëñ Ablaay Ndaw eh, tubarkal la ndànd ni cere gëne ci ñam yi lay la Aïcha gëne ci jigéen ñi waaw ngeen jubbanti moom bu fekkee du cere ah waaw waaw foofu nag joxoñ bu rëy ngi fi ci wàllu consommé local nit lekkut lu gën liy ñore cim réewam kuy lekk lu gën jóge bitim réew booy faju lu jóge bitim réew lay faj ndax say garab dañuy grève mhm. fi ne nit ñi bu fekkee li ñuy lekk bitim réew lay jóge li ñuy sol bitim réew lay jóge seen maladie yi bitim réew lay jóge kon seen seen médicament yi bitim réew lay jóge kullu shay'in min bitim réew àdduna tukki <laughs> waaw xam naa ministre bi war nañoo bàyyi xel ministère ministère yi war nañoo bàyyi xel ci loolu nun ñu dëkk réew mi ñu bàyyi xel tàmbali bi nag mën naa métti waaye mooy yoon consommer local mooy yoon nunu consommer local ala kulli xaal yonent baa ngi jàngale consommer ci soxnaam sii yaay Aïcha mook jigéen ñi ndeysaan waaw waaw mu ne wa inna fadla Aïcha ala saa'iri nisaa ka fadli tharidi ala saa'iri ta'am aw kama xaala Oustaz Cheikh Tandia muttafaqun alayhi ko moom waaw rajalaaw an yàlla nu ko yàlla fayal ngoog eh, yonente ba alayhi kon ñetti jigéen a ngoog seedeel na leen eh, ak mbaax def leenub liste ndeysaan waaye bu nu seetee sunu maam ji maam jaaratullahi ak dundam gi ak jamono jim ko def ak fi mu ko defe Afrique ak Sénégal gi nim naqaree ame yooyu soxna si ñu jël loola settantal ko bu baax danañu gis niroo gu am solo lool digganteem ak asayida maryaama yaayu isa alayhi salaam ci anam yu baree bari ndax kële dafa nekkoon ab jàmmukatu yàlla nekkoon xaanita ku nangoo topp mu te batti la waaw néew ay bëgg-bëgg ci àdduna lool mu laazima lil mihrab foo ko fekk ma nga ca mihrab ba nekk ca jaamu yàlla ga nga dégg ñu ne kullama daxala ala zakariya al mihrab wajada indaha risqa nekk ci mihrab ba rek saa bu zakariya ñëwee rek fekk ko fa fekk ko fa ak dara ba bis bam ne ko yaa maryamu anna laki haza ca ali imran aya 37 ngoog noonu ñu jàng dunduk sunu maam ñu jàng dunduk suñu maam ji bu ñu ko màndaxeeg loola rekk tabarkalla mu niru ko lool waaw mu ne noonu mu ràññikoo ci diggante mbindeef yi ci melo ci sell ba yàlla jagleel ko doomam ja isa alayhi salaam noonu la sunu maam ji dogoo niru ko ba yàlla wërsëgal ko mu jaddidu zamanihi a cheikh alxadim radiallahu taala anhu anhu ngoog soo jëlee soxna sële muy mariama kaanat waasiatal baraka ku yaatu la woon ay barke la ba barke ba yóbbu ko ci kullama daxala ala zakari al mihrab wajada indaha rizqa qaala ya maryamu ana laki hada qaalat huwa min indillah qaalat min indi huwa min indillah inna laa yarsuq min shaw bi xayri xisaab ci Ali Imran aya 37 sunu maam jiitam gis ngeen ni wërsëg ak barke di di tuuroo ak ni muy baawaane rawatina fële ca fële mu tëdd la ko fay fekk ci barke xam naa bu ñu doon laaj ana laki hada moom ngay yendoo soo demoon ca poroxaan ñu fay yendu tey loolu mën nañoo yendoo loolu ana laki hada yaa Maryam mu ñoo bokk tur moo tax di bàyyi xel yooyu ak di ko settantal am na solo sunu mbokk ma al ustaas Cheikh Tidiane ca Louga moo daan wax la woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkut cëy waaw mu ne la woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkut hmm? waaw ne na barke yaa nga wër poroxaan waaw tëli yaa ngay ñëw ndox maa ngay ñëw courant ak téléphone waaw tabarkàlla yépp a ngi ñëw te yépp dana ñëw incha allah dana gën a ñëw sax laay wax yaa maryamu ana laki hada boo jëlee jabaru firawna ca imaanam ga ca imaanam ga ba yàlla naan ba yàlla di ca di ca teg imaan wadrabalaahu masalan lii la siina amanu imraata firawna yàlla di ci joxe misaal ci jigéen ñi gëm ab sëy gëm yàlla gëm seen jëkkër te kooku jëkkër munta yàq li muy def bu comprendre nekkoon firaaw na yàqal yàqal asiya waaw nit day gëm nit day gëm bu ñu dugalee ci sëy dindi léppi àdduna teg fële yëg ne benn contrat nga yor soxna Kumba Jóob contrat boo xam ne <laughs> góor gi lay xumma yàlla ko yàlla yokk wér waaw mu moo signé contrat bi waaw kenn mus koo gis rek nga am gëm gu toll ni liggéey bi daa jaar ci loxol góor gi waaye diw lañ koy liggéeyal muy tabaaraka wa taala waaw liggéey bi daa jaar ci loxol góor gi waaye borom bi tabaaraka wa lañ koy liggéeyal gis nga ñaari way dencante toujours war nañu am niveau boobu waaye añuma kon damay ñibbi reeruma kon damay ñibbi waaw euh, tabaski tabaski ñu jëndaloo moom xar kon damay ñibbi si dangaa gëj a sama papa kon damay ñibbi rekk tabarkalla hmm? wa daraba laahu mathalan lillazina amanu imra'ata fir'awn id qaalat rabbi ibni lii indaka baytan fil janna benn bis mu ne yàlla man de sama jëkkër ji bokkunu programme allahu akbar rabbi ibni lii indaka baytan fil janna sama jëkkër ji bokkuñu programme au lieu mu ne war naj ji nii min min sama jëkkër ji déedéet mu jaar ca tura war naj ji nii min firawna <laughs> cheet alquran au lieu mu ne war naa ji ni min sama jëkkër ji mukk tuddewu ko jëkkër mu ne war naa ji ni min firawna waaw wa amalihi war naa ji ni min xawmi zalimina musal ma ci na musal mu ci tooñkat yi ko wër maa ngi ci ilaa poroxaan maa ngi ci maam jaara maa ngi ci asiyatu euh, seen niroo wala liñ niroo loolu loolu jigéen ji wax muy Maryam muy muy muy Asiya ne ci kër di sëy ak jëkkër te bokk leen programme te bokk leen programme programme euh, bi Asiyat wax de mooy wa najjini min firawna wa amalihi programme u firawna ngoog wa najjini min qawmi zalimina programme ñu ko war a ngoog boo jëlee suñu Aïcha exemple la woon fi riayati al bayt exemple la woon ci taatu zawj suñu Aïcha exemple la woon ci sàmm këram waaw ndax dafa bari woon njaboot guñ indi kër yonent bi diggante ay jaam diggante ay ay doomi doomi jiitle yu nu demee mun suuf leen ñoom ñëpp dégg ngeen keroog ba yonent bi tolle ci ay fanam yi mujj ndeysaan ca waxtaanam ak Fatima doom ja te mi ngi ci kër gi te waajuram génn àdduna bu yàgg ca Màkkatal Mukarrama waaw su ko ci kër gi te boo moytuwul bu mu ngoog daal hmm? eh, sunu maam jii di maam jaara it Hmm? Euh, ci wàllu riayatul bayti ndax sàmm sa néeg ci ci ci meloy gëm yàlla la bokk waaw sàmm sa kër ci meloy gëm yàlla la bokk ndax kër gi mooy fi gone yi war a dëkk waaw nu war koo defar ba gone mën fee dëkk waaye bu fi gone dëkkee ñu war koo defar ba ku ne mën fee dëkk loolu jigéen ñëpp nañu ko jigéen ñëpp mën nañoo nekk ay jabar waaye jigéen ñëpp mënuñoo nekk ay soxna jigéen ñëpp mën nañoo nekk ay soxna waaye jigéen ñëpp nañoo nekk soxna yu kilifa soxna yu sëriñ waaw soxna yu daara wax naa la wax naa ko suñ mbàkkee keroog ca eh, xissab xissab eh, picc ma ak Suleymaan waaw picc ma gis ne am na fi jigéen joo xam ne moo yilif góor ñam nekkal te jigéen ju mel noonu ci sëriñ bu mel ni Suleymaan rekk la baax waaw ndax faam bu tol noonu tabarkalla <laughs> moo tax yëf yi mu ngi noonu daal sunu maam maam jaara la dundu gay gàtt-gàtt la dundu gay gàtt-gàtt nee nañu fanweeri at ak ñetti at la fi dund noogay fi ne am na juróom fukki at noogay am na jur ëpp na sax xam naa ne waaw juróom fukki at yow mu ëpp na <laughs> waaw sunu maam maam jaara fanweeri at ak ñett la fi am as bi nga xam ne ci la jigéen ñi toll léegi ñu ne am jëkkër jot na yàlla nu yàlla yërëm waaw sunu penc mi ci ñuy dem ci maam jaara kër delsi adduna 33 ans la fi am te du fële ca poroxaan sunu penc mi dañ dul bàyyi xel âge boobu dañuy bay jigéen mu am 33 ans nga xam ne léegi jàng primaire jàng na euh, jardin jàng na lycée jàng na nangam jàng na nangam def na stage bi yépp jeex nag ñu door wut programme am jëkkër àdduna tukki waaw tëral ñuy loi nag daal di bu fi kenn mayee ku toll ci âge bi tëral suñuy loi ni bu kenn mayee ku toll ci âge bi te âge boobu muy toll ci la war a amee yi muy am ñu ne ko déedéet bàyyil ba weesu ko ñu door a seet ba xam mbokk yi ba dama ci Cheikh Mouhamadul Basir radiyallahu ta'ala anhu euh, ca téeram ba minanul baaxil xadim mu ne wa kaanat alwalida jaaratullah mariama saaliha afifa waaw kasirat alsalaa walsawm walsadaqa mustaslima li rabbiha qaa'ima bi waajibaati diiniha baynaha wa bayna rabbiha wa fi ma baynaha wa bayna cheikh al imam qariniha Mamour Anta Sali ndeysaan loolu ak cheikh Mouhamadul Bachir moo ko wax ca téeram ba mi